Jawaazirul TV nañu wax ak tontu leen ma waay tontu tontu farata la de. asalaamaaleykum. góor a waay. ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent rasulallah maa ngi nuyu képp ku fi teew ci turam ak santam. di nuyu mag yi di nuyu ndaw yi.

Hélène Tine nag dafa di ko xam ne dama ko naw ndax faydaam fullam waaye it ni muy doxalee politique te ñu bokk ci gis-gis Hélène saa yu jógee saa yu doxe saa yu waxee mi ngi jiital njëriñu askanu Sénégal jiital njëriñu senegaal loolu laa ko xamal Outenak politique politique politicienne bo hamne bo yanchi ngi yow lu jëriñ yow Sénégal te Elentin bok na ci nga xam am yakar, ci nga Mamadou Sen, tête de liste proportionnelle cher Sen, Njanga Njaay Demba Diop, Kumba Sow Aysatu Sow Awa Juuf ne liim ñëpp ndax liste bi gudd na Mais, nous sommes nuyu itam Adama Diakhate. Adama Diakhate, c'est sama Adama la bu ma waxee dafa fekk Adama bi ma taxawalee parti Alliance pour la citoyenneté et le travail dafa bokk ci ñi jëkk jóg ne ah premier ministre yow de ni ngay oote moom laa gëm mu sama politique waaye dinaa ci ànd ak yow mu def ci nag loo xam ne jafe na ma mën ko liim fii ma toll ak yéen waaye naa leen xamal rekk ne aadama bokk nañu parti waaye aadama ci kaw jikkoom ak li ma won ci yar ak teggin adama comme naa ko muy sama doom man def itam te député elentine wax na ko sànq man bokkuma ci dara ci ben liste Adama jógee na tugal ñëw fii inscrire ndax bëgg lieu de vote def transfert juumte am ca direction bu ministère de l'intérieur

mu indi mu taxaw tem ànd ak waa wàllu indi ñu ku mel ni Jean Baptiste Seck ak Mamadou Sène mu jiite liste proportionnelle Jean Baptiste Seck nag balaa may wax ci moom dafa am seede bu ma bëgg a seede dama bokk ci comité national de pilotage bu wàllu Sénégal maanaam kuréel bi féete kaw

da ngeen ñu jàngal lan moo war a doon politique te loolu lu ko indi am na mbag bu ma jiitu ci wax ji loxo yàlla ngi ci loolu kenn mënu ko bañ waaye it am candidat bu mel ni Jean Baptiste sec moo mën a indi loolu candidat bu ñuy nangu ne candidat consensus la ñëpp ànd ci ñëpp ànd ci ci kaw lan

Wa Sange wa commune de Noto, na ngeen politique do xaar ba élection dik ngay indi ay millions gis itam ay poteau électrique Yo xamné ñu ñoo xam ñoo ñoo ñu koy sanj diko samp du ñak qui ba la 23 janvier électricité di kamat lay xam bu leen nangu loolu bu leen nangu kuy xaar ba élection ñëw mu ñëw taxaw diggaate lu ne jël ay millions yoo xam ne yéen a ko moom Hélène wax na ko sànq di leen koy séddale taamu leen koo xam ne gis ngeen ci moom lu war a tax ngeen gëm waxam lu war a tax ngeen gëm ne bu toogee yéen lay liggéeyal te du liggéeyal boppam te loolu mu ngi ci Jean Baptiste Seck Alioune Sarr nak yalla rek a tax wax Un ministre ma premier ministre ku yarou la ku yarou la waye dafa amul suñu jot amul suñu jot maire bo ak conseil municipal bo xam buñu togué ligéyal ligéyal commune de notre té mi ngi ci Jean Baptiste Lolo, am solo de té nak jafe na waaye yomb na jafe na ndax ministre ngén amé l'affaire ministre ngén amé l'affaire waye li ci Jean Baptiste nek ci itam seni liste tax na bu gaay ne taxawon sax ngén ñeme ko songo ko ñu ñuy xaar coalition wàllu ñu ñuy xaar li nar a xew fii doon li ñu mën a yaakaar fu ne ci senegaal boroom doole dikk waaye ñi nga xam ne ñii dañu jàpp gox bi mu nekk seen xol jàpp gox bi ànd ceeg pas-pas yéene ko lu ne ñooñu ñu falu li nar a xew fii moom la ñuy ñaan yàlla mu defal ko fu ne ci senegaal ndax jot nag Sénégal ñu soppi doxalin politique bi ma doon wax sànq boo xam ne moo yàq senegaal jot nañu dàq ko indi leneen nañu soppi doxalin mu des nag ci yéen am nga lu ngeen def ba noppi taamu ngeen ki ki war ànd ngeen ci loolu am na solo xëccoo amul seen biir mu des nag balaa 23 bi ñëw Elentine Tine wax na ko looloo am solo meeting neexna na waaye porte à porte wax ak électeurs yi waxtan ak ñom won len bulletin bi ñu war sanni ci local ba ci élection communale ba ak yi ñu war sanni ci élection départementale ba su vote bu kone ku ne ku ne bu jog bu kenn des sa kër bu kenn des sa kër bu rafet njort mukk ne Jean-Baptiste jàll na ba pare ndax dafa di ku jub dafa di ku bax dafa di ko xam wa sangé wa ñoba Ndioba Ndiobaas ku ku nekk nangu nañ ko ko na ngeen jog dem jël sen carte sanni loloy gagné élection ba pare nak baña nangu sàcc ak njuuj njaaj ndax mom lañu xam ñoom mom lañu ñu tàmm njuuj bi day ban waxuma ko sen kilifa moko wax kon sañ ñu gëm ne ci loolu la ñuy dox soyez vigilants jusqu'à la fin de lañ jëf ci dalal bi ngeen ñu dalal man délégation bi ma andal Hélène délégation bi mooy àndal ak képp koo xam ne jóge na feneen ñëw war a fekkee ñu investir officiellement Jean-Baptiste Seck suñu espoir suñu yaakaar waxuma yakaru.

نمیرم